alors gis naa ne Sénégalais yi gépp génn nañ fépp parce que maa ngi soog ñëw mais maa ngi suivre depuis depuis xëdd ba léegi gis naa ne Sénégalais yi génn nañ fépp et puis ñëpp génn nañ bon de toutes les façons ni ma gisee nii changement dina am parce que ça c'est une expression populaire boo xam ne di 18 heures nit ñi dinañ ko constater sûrement partout dans ce pays c'est ça que j'attends lépp ngi jaar yoon de manière démocratique alhamdulilah Sénégal nii la mas a benn bopp la bu ñu mësul xaar ñaar politique mësu fi mësu fi xaajale dina am ay mais finalement bu ñu àggee ci bis kenn ku ne dina nekk responsable kenn ku nekk dina nekk kilifa. Euh, ma woo sama mbokki taalibe yëpp ci yar ak teggin dëkk bi dafa am borom te ñun ñëpp Serigne Touba lañ yaakaar te li yëfu àdduna rek bu ñu fàttee ne ku ciy def faatu ba dee bañ tër la ci bàmmeel duñ ne kii militant Sonko wala militant Amadou Ba la dañ naan kii taalibe Serigne Touba la kon ndegam ku dee nag bëggoo ñu atul bi la ci kenn ku du Serigne Touba kon waaye rikk bi ngay dund nanga am ngoru def ngir Serigne Touba def ngir yar def ngir teggin surtout bi sëñ Muntaxa ne nañu nañu yar ànd ak dal kon Touba war na wane identité boobu yar ak teggin bi ñu leen xame